xëyee dama na <laughs> mu tàng la woon. dëgg la Diagne Diagne nag soxla nañ la ci plateau bi tay yi nam nañ sa waxtaan. Diagne solution. ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay nuyu bu baax waaye Diagne waaw kay yendu jàmm jërëjëf xaxaxa merci Diagne <laughs> merci la régie s'il vous plaît thank you merci la régie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax si vous nous rejoignez yéen a ngi seen émission Café Actu il est 10 euh, heures euh, de 2 minutes nous sommes en direct sur YouTube vous pouvez aussi réagir via Facebook Instagram et X ex Twitter bu ngeen duggee ci live bi daal di abonné bés cloche de notification bu loolu soo ngeen daal di liker et puis partager pour permettre à ceux qui ne reçoivent la notification de YouTube daal di mën a ànd ak ñun ci euh, waxtaan bi alors laataa ñuy ñëw ci xët li mu xëyee fas yéene ci ànd ak Ngoné Diaba Diop. ngoone nuyu ñu quelques internautes ginnaaw bi nga yàqee sama maquillage eh, plateau bi ñëpp kenn concentré tul jërëjëf ngoone jërëjëf jërëjëf mhm. Mhm. kan ngeen njëkk a nuyu ah, ah macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax yaay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah. Mhm. Eh, di nuyu jaay solution moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax. Eh. wala ma yàqal seen maquillage ma bàyyi. mën naa lu jaay non là moom je n'en peux plus am na ko ko Jibi Konte sax gis nga Jibi Konte li mu bind daf ko daf ko commentaire lii la commentaire Jibi Konte. lan la wax bët yi neexatul ndax <laughs> ma xam nga sama bët yi neexul. Jibi Konte waaw. gisoo li mu bind le commentaire m'a échappé. Oh, d'accord euh, Raphaël euh, Coly ñu ngi koy euh, nuyu moom itam bu baax a baax. di nuyu suñu internautes yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun duñu seetaan nee na rouge danger sa rouge bi ah. Euh, Rose Mody Pouy nee na reetaan duñu ko baal xam naa te ñu ngi ko dul baal dina bari de lii <coughs> moom mënuma la baal mun. baal ñu ko rek. baal ñu ko Serigne Abdou laxaat mbakke Euh, ñu ngi koy nuyu di nuyu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ca Kédougou Pa Iboulaye depuis Cambérène euh, di nuyu bu baax a baax Teacher Kane depuis Nouakchott bokk na ci ñu ay fidèles internautes yoo xam ne ñooy ànd ak café bi tous les jours euh, di ñu seetaan di nuyu waale Ami Aydara depuis la Côte d'Ivoire Ami Aydara depuis Suisse di nuyu suñu tamit Lady Paris. Lady Paris Ami Aïda la Suisse. waaw ami boobu boobu Alama Bos. ala Alama Bos waaw man Alama ah. Bos. Ah, ah, ku nekk sa bos Paa ko way Paa Paa Bidou wax ne ku nekk ak sa bos. ala ñu bos. waaw Ami Aïda rek ko boobu moom ñu ñaar ñoo ko moom. waaw maa ngi ñoo ñoo ñoo bokk lépp. waa Pikine waa ñu ngi leen nuyu bu baax Papa Medoune ñu ngi nuyu waa Pikine waa Guédiawaye Ibrahima Diagne. di Kaolack waaw Pikine tey da leen war a beral loxo. waa Allemagne waa Pikine ñoom laa may émission bi tey man émission bi tey euh, xam nga laa ko may hmm. euh, Pikine Ouest Pikine Ouest Cheikh Diop hmm? non sama Cheikh wala Cheikh Diop maire bi euh, am na Pikine ñaari ak sa Cheikh Diop <laughs> Cheikh bu sale suñu tamit Pikine waa mhm. Cheikh Touba ñu koy nuyu waa c'est vrai Cheikh Touba ñu koy nuyu mais Ousmane Niang itam waaw am na ko ci daloon ñu koy nuyu bu baax a baax gi aussi am na ku ma fa dajaloon mais tur bi laa ko fàtte woon laaj. bu la bàyyee tuuti xéewal <laughs> ñu la bàyyee nga jël meeru Pikine de. sonn man ni ma la gisee nii ak Moustapha Fall nekk depuis 6 heures au Canada léegi mu laaj mairie bi. Moustapha Fall depuis euh, Canada ñu ngi ci 6 heures du matin mais mi ngi toog. jàkkaarloo ak yéen di leen ah, seetaan di nuyu di seetaan waaw waa États-Unis ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. même waa France ah Serigne Bassirou Seck. waaw kooku suñu soppe la bu baax. am ngeen soppeeku suñu xarit bi ñu koy ziar. Moussa Moussa waaw waaw Moussa waaw. benn baax waaw am yitte. bu baax yàgg ñun lool sax. rafet xol waaw. dëgg yàlla ñu nuyu bu baax a le parisien nuyu waale ko. am Dieng. am ak le grand Diadji aussi ah parisien. boole la grande professeure d'université en Louisiane. Mm-hmm. oui maa ngi nuyu spécialiste en médecine. Mm. yaay mm. Fatou Sarr. ak Amila yaay <laughs> nga ni ma nga fan Louisiane. professeur d'université à à en Louisiane sénégalais yi ndaanaan. Euh, wax nga wax nga matière bi muy dispenser sànq. médecine médecine science médicinale. ki liggéey ah, ak Eva. moom moo doon expliquer euh, une fois waxtaan nañ ci Passe TV il faut ngeen jël ko fii muy expliquer l'importance que l'État au Sénégal war def attention ci ces histoires de vaccin la vu hmm. fi gars yi nekk professeur d'université en Louisiane quand elle nous prévient sa veut dire ça veut dire ce que sa veut dire. Lat Diop depuis Kër Massar ñu ngi lay nuyu. ah ki ne ba Yankoba ba nee na mu ngi leen di eh, ziar yow moom Nabou dama la mere Nabou loo def Yankoba ba ba mere la. xaw ma je sais même pas. bu ko meree baal ko baal. baale ko internet yi rek laay ñoom seen seen seen li ñu bëgg rek. waaw ñun ci la ñuy topp. dëgg dëgg la. léegi moom na ma baal rek nañu nañu xoolal ba kan bëgg ñu invité ko ñu invité leen du dëgg waaw ñoom voilà pour nous faire ni xool leen ku ngeen bëgg ñu invité ko dëgg la incha allah maam bi la wàcc deex na wol xaj bi paasa loolu maam bi la maam bi lañ bëgg ñëw woo mais nekk buy ñëw nag dañ ciy taxaw suñu combat la waaw ko ba tey nekk buy ñëw waaw bu solul mbaxane bi bu mu dugg bu solul mbaxane bi mu sol bu mu dugg <laughs> kii laa ko woowee euh, Pape Ousmane hmm. <laughs> dañ toog rek ma ne ko fii de kii nga ma saf ñoom Pascal Dieng ak kii. ah. Salsa Mbalax. Ah, ah mais mbax na moom jàpp na ko wax dëgg yàlla. jàpp na ko lool ñooñu la. salsero xam ah, ah, comme yow rek yéen a xaw a yem nag yéen xaw a tolloo niveau. Assane Mesere bu nabu maa ngi lay nuyu bu baax a baax. président des chroniqueurs du Sénégal moog sooy bu ak Sa Ndiogou ñu ngi nuyu bu baax. aw Ndiaye tamit koy nuyu. ñoom ñoom kii. ndaanaan ak yéen mais yow jënd nga carte de membre ci Assane Mesere. alaaj jën jënd nga. Baye carte membre lan. ma ne nga sigi. Assane Mbese moom démb rek ñu ngi waxtaan membre lan. moom mooy président chroniqueur yi Sénégal. ah mm. loolu pour nga adhéré nag Assane waxuma loolu. déglu ma pour nga adhéré. waaw faaw nga aw ci man wala nga aw ci nabu. ñu jox ah, la carte nga mën a dugg quest léegi après ñun nañ la wax nan ngay def. Ah. comme nga adhéré. non mais nag. na a Talla Fall. Mm. parce que moom Baye assan moo ma koy may. mooy Mayka mooy Mayka. Euh, Assane Mesere. déet xanaa ñu ñaar ñëpp lay jël. man la ma jëwoon moom nee na aawam ñaareel mais dama koo leeral. ma ne moom moo lay may. ngóo. waaw bu duggee. Mhm. ma génn parce que man bu jëlee ma duggal ba pare mën naa la fekk si garaaw. Euh, euh, kilifa ma ko ne. man waaye kilifa bi noo def. waaw sant ak na mën a nekk. yow yow koor comme sonn. waaw kay. ak àdduna yëpp a ngi lay dégg de jamono bi. yaa ngi en direct Assane. ah loolu de la yàlla def moom man mënu ma ci dara. <laughs> kuy jiitu ci ñoom ñaar. nabu na jiitu ñoom ñaar ku ñëw ku njëkk ñëw baax. ah léegi yow lan nga mën yaay yaay sama doom nday yaay sama lépp yow yaa fi nekkal. waa déet moom kay man maa la war a jox sax waaye dama bëgg a xam ah. euh, fan nga toll nan nga tooge man ni ma toogee pare naa ci plan ci plan yëpp. waaw ngoone boo yaakaar ni pareeg ma ngoone boo yaakaar ni pareeg laa gën a pare. <laughs> boo xalaat rek ma naan kii est-ce que man it attan na kii ma foofu du wax jàmm dama ne wuy ma li ma la li ma la laaj lenn dama ne fan nga toll moo ah. toogee. wax ko mu ngi dee day day xam naa de. pare nga ci plan yëpp ab lay déglu de. Assane xamul looy wax it de. boo boo yaakaar ni day xaw a critique ci man wala day xaw a diis ci man balaa booba dama taa aay dama koo man ma ni yow. Eh, eh, eh, waa ci suuf wuy Pape Ousmane. man non man kay dama ko naan ci suuf. waa léegi ci suuf Pape Ousmane nee na ci suuf. waaw Pape Ousmane sama doomu ndey la. <laughs> am man ma ne <laughs> ci suuf laa wax. gars yi nee dañuy dañuy bañ nga wax lu ëpp. <laughs> waaw moo gën a wóor de. <laughs> wàcc ah tout à l'heure day màmm léegi. Eh, Talla Fall nga nuyul ko. waa Mboro yi nga xam te ni ngi nekk États-Unis jamono ji donc ñu ngi gis yaaru baax waaw yàlla yàlla bu nit yàlla bu sa audio fuité yow. <laughs> bu fuité mu ñaaw. yow Assane yàlla bu sa ci àddina. ay yàlla jàmm <laughs> ah, moo gën de ñaan yàlla def jàmm rek moo gën ci ay ca ma <laughs> on démarre avec la revue ajaratu mami namm nañ la lool. namm nañ ko nag war naa gaa ñëw de. ñëpp mhm. moom la. moo topp café gi yëpp ayca leen. ayca ñu ñu def ayca ayca ayca xool ma ne gàttaay ñu lay def ko la. góor naan naan Fatou naan l'observateur. góor <laughs> Sarr ah yàlla baax na. tabaxalam bi. <laughs> alors ñu ñëw ci euh, l'observateur mu ñëw tey ci ligne de défense. Macky l'excuse mal placée diagnostic bi nga xam def nañ ko ci compassion bu régime bu Diomaye évoquer les fautes entre guillemets de Macky ngir justifier ses errements